qu'aujourd'hui man mënuma wax noonu ci ay euh, ci kàddu yi nga xam ne maanaam tey sénégalais dañ koy faral di ko wax mooy di wax di wax pour wax man je suis dans l'essentiel mooy liggéey donc crise bi am ci culture sénégalaise ñun ñëpp xam nañ ko donc si j'ai décidé donc de venir pour soutenir ne la musique autrement booy xool thème bi point de presse bi mooy je ak sama ñi may liggéeyal ne leen thème du sujet bi ci point de presse bi mooy ñu waxtaan ci la musique autrement que en tant que jeune sénégalais acquis un peu d'expérience dans la musique ci culture ci muy extérieur comme muy Sénégal ah, samay parents ñoom ñëpp je pense que yoon la ak sama famille ñoom ñëpp accompagnement ci liggéey may entamé ma bëggoon nag en tant que jeune parce que ñu fi nekk ñëpp ñu bëri di yëngu si wàllu musique euh, fii Sénégal ay jeunes leen et je pense que musique bi doon na crise bi nga xam ni man dama naan dama bëgg dama bëgg culture donc ci loolu moo tax nag ma am ambition ñibbisi waa Sénégal pour teg projet bi nga xam ne tey mooy label Jeri Ngoné ak yeneen service yi bëggoon en tant que jeune ak képp koo xam ne tamit xamu xamu xamuguñu ko ñu ñëw ñu collaborer en tant que jeune ñu liggéey parce que je je me dis que dama ñëw gis ay yenn euh, jikko yi nga xam ni ci musique bi dafay yàq musique Euh, je pense que tey euh, ñi nga xam ne tey mooy mbër yi sax comprendre neen booloo mais dama ñëw gis ay divergence ay concurrence yoo xam ni xamuñu lu mu tudd man lépp lu may def su ma ko gëmul lu ma ko def lu may dugg dama koy gëm dama ciy dugg ba may ñëw nag dañ ma préparé ma préparé suma bopp ñëw ma rek par hasard te li ma bëggoon moo ñu jéem a changer développer la culture suñu dëkk ndax ñu fi nekkoon ba léegi muy ténor yi ba léegi booy xool ñoo fi ne mm-hmm. amul benn changement te dëkk boo laal ci Afrique muy Mali nigeria yeneen continent yi da ngay gis seen musique di développé man nag je me dis que pourquoi pas en tant que jeune ambition rek la du du alal du dara mais ñu collaborer jéem a liggéey jéem nag arrêter les concurrents yi nga xam ne amul njëriñ amul benn bu ñu yóbbu fenn te ñun Sénégal dañoo doon pays pauvre il faut que ñu comprendre loolu xam nga donc da ngay gis un jeune ba nga xam ne tey aujourd'hui tey day am métier bu baax mais day bëgg a dem Europe lay gis lu loo ko fay fay fay fay fay du doy parce que lépp fii hmm. social donc man naa jéem a ñibbisi parce que nit amul lu sa dëkk te sama famille fi lañ nekk samay mbokk fi lañ nekk samay amis d'enfance donc je me suis pour pourquoi pas ñëw tamit ma sacrifié wu na am na ñoo xam ne ñoo ngi sacrifié pour le Sénégal ah, di dem di dee nekk ci guerre bi di garder ay frontières pendant des heures donc pourquoi pas en tant que Sénégalais ma ni nag naa ñibbi sama dëkk loo am am am am am alal mais alal pour man lii may alal ñëw sa dëkk daf dara mm. mais nag may ñaan nag jeunes yëpp waaye képp ku nekk si culture sénégalaise ñu change un peu orienté wu un peu suñu formaté waat suñu cerveau yi na ça me fait très mal en tant que des jeunes ay wax jàppal diw bayal diw far fii far faa amuñu benn sens xam donc pour ñu mën a exporter la musique ba pare faire la musique man je me dis que depuis certaines années yi passé yëpp musique bi xamul mooy ndur xam nga ñun doon noon man voilà xale la mais ba mu nekkee xale bu ndaw doon noon waxtaan ci musicien bi moo ay xoolal Papis Konaté xoola expérience bi lu mu dugal fii xoolal Dembel xoolal Habib Faye ndaw si yàlla yàlla na ko yàlla xaaree na donc ñun yooyu moo doon suñu débat mais rek débat bi dafa doon autrement donc je vois tellement de jeunes yi nga xam ne dañoo talentueux xam nga ils ont tout à exporter kon nag su ma ñëwee pour ñu collaborer loolu moo ma indi mais man concurrent indi ay defante induma du ma ragal nag xam ñaatal laa dëkk laa juddoo laa yaroo laa màggee du nag ay dëkkoo fii ay Europe nga nekkoon loolu amul xam nga ñëpp ay Sénégal leen salaam mi toog fi tey su kilifa moo ma moo ma yar kon nag su ma euh, wax nag comme ni ma la ko rek mais j'essaie de vous faire comprendre que ni liggéey moo ñor liggéey def ay événement montrer c'est quoi la culture exporter ko te gëm naa ni jeunes yu bëri mën nañ ci gis seen bopp ba mën a yor seen kër tamit yor seen famille normal dignement que ñu topp ci ay loo xam ni ay wax bu dul jeex la donc on aime trop discuter palabrer pour rien donc su man ak kii juste expérience du du damaa xam lépp mais ah ci li ma jàng ci Europe ak expérience bi mu am comme ni naan ku tukki soo amul alal li nga am expérience. donc euh, sama jaar-jaar gëm naa ne tey sénégalais en tant que sénégalais ak en tant que toute modestie euh, sama biographe ci euh, culture gëm naa ni amul kenn kenn ci sénégalais bu mu ko ci ëppale. ci ni mu collaboré ak artiste muy international ak ku mu mënta doon nañu bàyyi dëgër bopp te di déglu nit ki su la conseillé rek vision rek la la conseillé. mais da lay du da lay pour di la wan ne maa gën a xam ñun nag étranger bi di ñëw extérieur muy tubaab beeg wala beneen xeet moom la gën a respecté en tant que sénégalais man damay gis ni loolu c'est malheureux te c'est vraiment dommage que dañoo war gëmmante suñu bopp gëmmante suñu bopp jàppale na suñu jàppante rek bu ñu bëgg di leen ko donc foofu lay mën a yem en attendant di leen wan ni euh, on avait prévu benn concert le 7 août avec Wally Seck si Rufisque pour démarrer woon yeneen date ci national bi comme que actuellement nag ak période Covid bi donc alal neex na waaye santé ko gën wérgu yaram foog naa ni amul prix donc on s'est dit que vraiment sagement nag ah du gouverneur du préfet du kenn même tout à la règlement waa waa Rufisque woo préfet bi naan ma lu tax ngeen annulé ñun vraiment ñu bëggoon concert mais ma ne ko non ñun waxtaan nañ suñu biir gis nañ ñu ñu ko moo gën mm. donc ànd ak seen yeneen artiste pour juste mettre des scènes yi nga xam ne tey ñun suñu projet définitif mooy dem ba di créer ay festival mm. ndax man loolu laa xam je suis plutôt événementiel même dans la production kon nag nañ jàpp ñu gën a xamante gën ngeen gën a xam label bi liggéeyam ak option lan la bu ñu naxante xam nga du ay wecc takk affaire yooyu noonu nañ liggéey ku ci bëgg dans la culture liggéey si na nga ñëw ñu ànd ñu liggéey ku gëm ni mën nga yokk label bi pour autre chose projet yi yëpp lu mën ta doon ci culture on est te yemuñu si musique rek ah parce que événementiel moom lépp la musique euh, bëre même ba ci benn affaire bi nga xam ne dafa dafa manqué si culture tamit muy bale mooy fecc bale xool lu mu deewee te ils amenaient de monde dañ doon jël ay plus de cinquante personnes den yóbbu tey ñooñu tey ñoom ñëpp nekk leen biir Europe toog fa parce que ndax lan parce que Sénégal dañ naan affaire bu doxul